bi ci tegu euh, xam naa ni entreprise rawatina entreprise de presse moo tax may ñaawlu ba fu ñaawlu yem li ñu def Walfadjri groupe Walfadjri mais comme ni ko Cheikh Tidiane Dieye doon waxee léegi ci àddina bi ñu toll léegi mënoo tëj buntu tëj palanteer gis naa Walf net di doxal di retransmettre en direct suñu cérémonie mais bu may insiste ci Walf c'est parce que témoignage témoignage la dama ko fekkee fekkee alternance 2000 ma nekkoon journaliste fekkee yeneen alternance yi walla beneen alternance bi témoignage bi mooy groupe Walfadjri ci ADN euh, groupe de la démocratie la groupe de l'alternance la te kat te ala kulli aal bu soobee yàlla dina fekkee beneen alternance te yàggutul 25 février 2024 lay doon bu soobee yàlla kon nañ leen bàyyi ñu wéyal seen liggéey parce que ce n'est pas acceptable bi ci tegu troisième mandat bi merci Abdourahmane Diouf bi nga xamante ni yow yaa présidé panel boobu man dama bëgg ñu insister ñu ngi jëm ci tabaski sànq gis nañu vidéo bu ñu projeté président Macky Sall di wax euh, feetu korit julli korite ñu ngi jëm ci julli tabaski foog foog ñu profité occasion bi wax ak suñu imam wax ak suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi déchéance morale déchéance morale bi nga xamante ni moom la président Macky Sall ak ñi mu àndal la bëgg a la société sénégalaise gis ngeen troisième mandat bi bu jàll ça veut dire que kàddu amatul ci Sénégal te loolu benn góor waru ko nangu nañu profité ci tabaski bi def ci communication bu am doole pour nit ñuy xam. tuuxiduuna bi nga xamante ni ci lañu président Macky Sall bëgg a ñaareel bi am na ku ko wax léegi et il a été très inspiré gis nga bu jàll tous les verrous vont sauter waxuma la deux mille vingt quatre wala deux mille vingt neuf c'est plus que ça et c'est pire que ça c'est pour ces raisons que personne ne doit l'accepter